ay ca Omar ñu bàyyi la ak Abou Mbaye ci sant mu naqari bi <laughs> mu ngi noonu mbay di la ziar bu baax am di la wax nga jege micro bi ah wa xaw ko wàccee tuuti nag ah, pour ñu mën a wax voilà c'est ça merci Abou jaajëf rëccu fal Macky ah mhm. yaa jiite mouvement boobu mouvement bu ñu yàgg dégg la tur bi ah? mhm. mais mouvement la boo xam ne est-ce que euh, c'est toujours d'actualité mhm. maanaam est-ce que mën nañ ko wax ba tey jii rëccu fal falaat nañ ko fi 2019 mu ngi déroulé depuis lor mhm. Macky mi ngi def ay réalisation mi ngi mhm. déroulé di di fi teg yoo xam ne tey jamono yi sax gis nañ Macky Sall bu neex deret sa mhm. ah. saa foon teg askan wi teg ci ci jamonoom ci leen fi gis Coupe d'Afrique des Nations est-ce que rëcc mënati mënati na am ci fal Macky Sall euh, jërëjëf benn xataab donc damay sawar bu baax di ñëw ci rëccu fal Macky nga xam ni donc dafa nekk li nga xam ni ba léegi actualité la maanaam dafa ànd ak jamono ni mu tax mu ànd ak jamono mu ñëpp xam ne Macky Sall amoon na benn yaakaar bi askanu Sénégal amoon ci moom yaakaar googu kat ba mu jëlee réew mi yaakaar googu dafa tas looloo indi rëccu fal Macky ñun xooluñu mandat xam la ñuy xool gestion. yow neel sa yaakaar dafa tas yow. sunu yaakaar mooy askanu Sénégal ci boppam maanaam euh, rëccu fal Macky nekkul ki nga xam ne dafa faloo dafa euh, sànniloon carte Macky Sall. même ki nga xam ne sax woteelul woon ak Macky Sall mu ngi doon xalaat ne waa jii kat xëy na bu toogee mbir yi dina changer ndax c'est la première fois euh, vraiment euh, président de la République defee jàngam yëpp fii ci Ndakaaru génnul réew mi c'est la première fois président de la République am soxna si nga xam ne kat fii la jógee directement muy muy muy muy euh, Marème Faye Sall muy muy sénégalaise. Elisabeth lan la woon. mais Elisabeth Elisabeth. Elisabeth ah, ah, ah, non la mais boo xoolee c'est c'est dëgg. gis nga rek waaye non mais boo xoolee. non non non c'est-à-dire que xam nga mais mais ses origines xam nga fan laa mën a boo toppee origine Mariam Fall Sall léegi mu génn Sénégal. <laughs> fii koo fi topp origine loolu loolu ko yar mi wax moi j'ai pour ñi ko yar moo tax. ngay wax voilà voilà lan la woon laa wax. xam nga une véritable sénégalaise muy maanaam en fait muy muy ci maanaam ba ci doxalinu soxna si moment boobu nga gis nga déggoon ne euh, gouvernance euh, sobre sobre et vertueuse nga dégg rupture mm-hmm. maanaam maanaam dañu jël ñëw ne dañuy gën a jege askanu Sénégal dañuy doon ay sénégalais mm. nga gis ne première ndogu bi Macky Sall invité woon ay ñoñam yi nga xam ni ñoo ko faloon ndogu boobu boo leen fàttali koo xam la lañ fa joxe woon ay fonde loolu pour wanoon wane ne mm. aada ak cosaanu Sénégal kat tey jii nii dinañ ko jël jiital ko. tabaski bu njëkk Macky eh, dem jëndi xar dem jëndi xar waxaale. nga gis Macky Sall am <laughs> un mu ànd ak soxna soxnaam Macky euh, Marème Faye Sall ñu dem sàndaga di dugg comme toutes les femmes sénégalaises ñun ñu am yaakaar ci moom. ñu dem ba ci yàgg vraiment giskat kat ne que waa ji kat ni mu yoree réew mi baaxul ndax d'abord boo bëggee yor askanu Sénégal di copier lenn li nga xam ni beneen askan la nga xam ni bokk bokkuñu réalité. nga ñëw ci PSE niñ ko concevoir d' abord ñi ko concevoir c' est un cabinet d' experts étrangers moo tax e mënul soqali Sénégal réew Sénégal bu ñu xaar PSE mën ko soqali bu doon village sax lañ ko ci village sax lañ ko entreprendre mënul soqali. village man je parle man mois je parle des faits. Mhm. maanaam loo xam ne dañ ci teg loxo. Mhm. bu nee président Macky Sall. Mhm. li ci mujj mooy infrastructure routière yi. bu nee président Macky Sall mun nañ wax état yi mu fi def bu nee président Macky Sall weddi gis bokk ci ab ndànd foy foy ga nekkoon ca jam euh, ñaajo mm-hmm. ñu gis tey ji demee jam ñaajo nu mu soppeekoo ci infrastructure mm-hmm. depuis lors ñu gis nii tamit même sax ci côté xaw jig réew mi Coupe d'Afrique bi mu la wax sànq. Mm-hmm. maanaam tey jii heure boo nee Macky Sall loo ko di de autopont yi nekk fii nii. Ah, booy dem ci VDN bi c'était pas comme ça euh, VDN bi 3 bi. nekk ci yoonu ndar wi maanaam foo dem ci réew mi ay chantier mi ngi fa est-ce que du loolu boo ci bañ a dut baaraam mooy da ngay nekk nullus hmm. maanaam nekk koo xam ne tey jii da ngay gis dara na gisuma ko quoi hmm. mais quand on parle de Macky on peut le critiquer hmm. ne rëccu fal mais yaa a des réalisations yoo xam ne boo gisee kat mun nga ni ah waa ji kat am na fu mu teg loxoom waaye ten fu nu ko doon xaar yëpp eggu fa mais am na lu mu jotee def au minimum xam nga nit lu mu cuune cuune cuune mënul ñàkk bañ a réaliser mënul ñàkk bañ a def benn réalisation. Mm-hmm. mais je une chose xam nga dañoo nekk ci au vingt unième siècle ñu nekk ci euh, dëkk bi nga xam ni dafa bokk ci Afrique bokk ci dëkk yu gën a ndóol mu am ay priorité bu euh, boo xoolee askanu Sénégal ñi ci gën a am doole muy la jeunesse xoolal jeunesse bi tey yow gëm nga ne euh, régime bii nii mën a rendre émergent Sénégal. régime bi nga xam ni mooy négliger sa jeunesse demal université temps yële yaa ngi dégg syndicat wu jàngalekat yi di di di di grève temps yële yaa ngi doon dégg ay yëngal gësam doon doon grève syndicat yëpp non non attends non attends j'en viens j'en viens c'est-à-dire que pour te dire que yaa yaa ce qu'on appelle euh, des priorités cest à que réccu c'est man bëgg naa réccu man am na loo xam ne bëgg naa la ko laaj quoi mhm. yow mhm. am nga vision n'est-ce mhm. ku am vision nga ah? mais. ban vision la sa vision doxut. d'abord que li tax sa vision doxul. Mhm. mooy. Mhm. li ngay wax nii ci Macky Sall. ne da kon yow dafa mel ne daf laa bett. wala wala waxoon dafa bett. bett nañu parce que. waaw mais c'est que yaakaar c'est que c'est man foofu la sama xam nga man pour man. yow xam nga la ngay rëccu. li lim la ñamalut. non non non no c'est que boo ñamoon tey doo waxee ni mbaam may ma rek dama lay expliquer c'est que xam nga Omar mhm. dafa am loo xamante ne bi mhm. bu fekkee ne yow dafa am looy toppee nit mhm. am na loo xamante ne bi tamit avant président Macky Sall di falu nekkoon na ci nguur am na ay doxalin yoo xam ne gisoon nga ko ci moom wala gisoo ko ci moom non gisuñu ko woon gisoo ko bi muy dem di vote ji fële nekk ministre de l'intérieur xam nga voilà voilà gisoon nga ko la gisoo sans carte d'identité. waaw non loolu loolu xam nga fenn la. gisoon nga ko bi nga xamante ni bii créé na partem tudd réew mi lan la ci waxoon. gisoon nga loolu wala gisoo côté ak ak yelleef la xam nga nit ki mën na bañ a ñëw mën na ñëw bañ a nekk ki nga xam ni il est consciable ci ay euh, règlement ak droit mais mu liggéey mu liggéey. mais ki nga xam ni ak ak yeleef waaw mais liggéey moom la. talu ko bu fekkee ne yow liggéey. bu ay tabax ak ay sànce yooyu rek moo tax nga wax ndax bu liggéeyul eh, jàmbaar ah. nee na Macky jàmbaar ah bu fekkee xam nga yow non ça dama la jox benn rek dama la jox benn exemple rek jox benn exemple que ne la Macky Sall ñaari fan mooy seen problème hmm. ñàkk mos no non non non non ça mos non doo mosoon doo wax non ñun ay homme d'état lañ du ñu du ñu toog <laughs> du ñu toog fii télé di wax naan ay woo na ñoog bañ nañu woo ak ñëw ak ñëw ak nii mais ñun lu ñu xam mooy lu ñu xam mooy justement c'est tellement important li nga wax noonu hmm. xam nga sànq maa ngi ci ñëw xam nga yor dëkk vision la jis gis la waaw muy tey jii man mënuma comprendre le président de la république Macky Sall il est comptable du bilan de Wade mu toog ak moom liggéey ak moom mu am ay failles inondation bokk ci chômage de la jeunesse bokk ci dund bu cher bi bokk ci loolu daaneel Wade tey jii nii loolu mënu koo saafara man tey jii ban ba ma déggaatee ay ndaw euh, seen bakkan euh, vraiment lor na ca géej bi ñu ñu doon dem Espagne maanaam barsaak barsaak ban ba mu ko déggaatee sa phénomène laa ñëwaat man dama metti parce que man jàpp naa ne comme on le dit l'état c'est une continuité tey jii nii man euh, problème bi fi Macky Sall fekk. Ah, keneen kuy toogaat keneen kuy toogaat mais mais mais mais attends mais attends ñun dañ ko fal pour mu saafara loolu <laughs> te pourtant moom moo cest à que c'est-à-dire que euh, Sadio il faut que ñu exigeant il faut que ñun ñu exigeant ak suñuy dirigeant man je n'ai pas ce problème de poste là. Hmm. je n'ai pas ce problème là su doon affaire poste rek maa ngi ci ñoom yàgg hmm. na. Hmm. musoon nekk ci APR est né ah. devant moi. musuma nekk ci ñoom ah, Omar def na révélation na musoo nekk. musuma nekk ci ñoom. foo nekk fu mu nekk. da koy laaj. musuma nekk ci ñoom ah, Omar mm-hmm. mais APR est ba ko ba ko le régime Wade harcelé ba boo ko ba mu surmené mbukat la ba mu surmené boo ko wowoon jabaram jabaram ngay jot hmm. la fekk université jëfa <laughs> je te la vraie histoire li li li li li sos APR li sos APR c'est un mouvement ñu tuddee ko front pour l'indépendance des pouvoir ndax dañoo wàññi woon pouvoir am kii ko waxtee mandam fële ci assemblée nationale soxnaam doon ko xeex ak Aline Badara Cissé est-ce que yaa ngi comprendre. Mhm. à l'époque. waaw léegi léegi léegi. donc loolu c'est ñun am nañu à peu près à ñun mhm. xam nañu lan moo tax APR juddu. Mhm. ak ci li ñu wax ci assemblée nationale baak makeeg dañ ko doon buntu xataal ak yooyu. yooyu d'accord nañu. mais xam nga boo tegee tegee dara. da nga fay teg dara. nit ñi au moins xam yow li ngay wax lan la. parce que mënoo ni mouvement. rëccu fal Macky. mouvement boobu engagé wul Sénégal yëpp. une partie la engagé muy seen mouvement bi ak ñi ci adhéré dëgg loolu dëgg. mouvement bi sax ñan ñoo ci adhéré. loolu aussi. mouvement bi ndax am na crédibilité. ndax am na pour waxal yenn ci sénégalais wala book sénégalais yi. loolu aussi foog nga koy waxtaanee ak ñaata membre moo ci nekk boobu bu weesoo. nga wax ñu lan moo tax. ngeen rëccu fal Macky Sall ci bindu kii énuméré na la. pas mal non non non non non non mais loolu c'est pas une raison quand parce que daan doog a fondé ba yàgg. c'est pas ah. la waaw <laughs> soxna bëgg naa aussi ñu. <laughs> loolu <laughs> ñu déglu ma d'une manière pédagogique. mu expliquer que ne rëcc Falmaki. muy maanaam euh, yaakaar gi tas. bi askanu Sénégal am ci le président de la République. léegi baal ma ñëw ñëw baal moo ñëwee ci programme bi. déjà le président de la République moo ñëw moo taxawoon ne bu nga ko joxee réew mi. vingt cinq ministre la koy yoree ci programme am un mu ñëw proposé ne yoon yokkute dina teg dina entreprendre yoonu yokkute ba sénégalais euh, fu mu nekk ci ci Sénégal dina jàng dina dina faju du am problème mu dund le président de la République toujours moo moo taxawoon ne justice bi moomul boppam bu yoree réew mi justice bi dina moom boppam maanaam dina am indépendance de la pouvoir euh, du pouvoir. du mhm. yaa ngi comprendre mais tey jii nii lan lañ gis pouvoir buy singale ay opposants pouvoir buy singale ay ay ay activistes mooy ñi nga xam ni maanaam tey jii nii euh, dafa am ñaari sénégalais sax tey nga xam ni Macky Sall moo ko créé ñaari sénégalais yi muy kan. Mhm. muy tey jii sénégalais bi nga xam ni ci APR la far la bokk. Mm-hmm. c'est un membre de l'APR ak ki nga xam ni bokkul ci APR ki bokk ci APR lu ko neex def parfois sax dafay nekk ci kaw justice wala ci kaw yoon lu ko neex def mm-hmm. loi du am ci moom euh, loxo loi loi du am ci moom wàll mais ñu gis ne opposant bi wala keneen ki nga xam ni farul ci APR mm-hmm. donc bu defee dara rek dafa mel na Macky Sall caabi rëbës mu ngi ci poosam mu ne ko mu ne mu ne rëbës karak d'accord tëj ko d'accord maître nous a rejoint sur ce plateau moom euh, maître Pape Djibril Fall mm-hmm. euh, maître ñu ngi lay nuyu d'abord waaw euh, jégalu nag waaw amul solo amul solo ayca <laughs> mel na ni bëgg nga bëgg nga bëgg nga je rappelle que ni am nga invité muy maître Sadio di directrice technique national Viet Vodao Viet Vodao mm-hmm. voilà dina fi léegi ci kanam mm-hmm. ayca mën nga dugal sa question dama dégg léegi mu wax ci kii bi day singalik opposé mais yéen fan ngeen bokk yéen opposant ngeen. absolument rëccu Falmaki. Euh, mais est-ce que gën. <laughs> mais est-ce que gën woon ngeen dem fekki euh, yeneen yeneen opposants gën leen a may doole comme euh, waa Yewwi Askan Wi non ñu ngi ñu ngi ci ay coalition mais tamit xam nga ku nekk ak sa orientation politique ku nekk ak sa gis-gis. ci nekk mën naa jàpp ne mën naa ànd ak Sa Ndiogou wala mun mun maa eh, ànd ak mën naa ànd ak soxna Béti mun maa ànd ak yow loolu noonu la yàlla bindee mm. mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que il pour comprendre juste non non gëm sa bopp maintenant maintenant ah, ah, ah, voilà non après nga ñëw sa question après nga ñëw sa question nga bokk je suis d'accord après après nga ñëw sa question porte parole man naa ci télé bi waaw nga doon wax ci gëm sa bopp Eh, mais loolu coalition la waaw boo ko gum sa bopp nag. dara ñëw loolu coalition la. Ah, mais bu la neexee kay nga bokk loolu coalition la mu koy nëbb. bëti non nëbb ma ko. da nga koy nëbb loolu coalition la léegi. soo merci xam nga am solo tey. yoo li mu maa rëcc fal ma ki andi tey. li <laughs> ko li li mu andi tey. mais tey jii nii dañoo war dañoo ñëw taxaw ne taxaw temm exiger. aux dirigeants de ce pays là ne leen tey jii nii kat. da ngeen di fulal askan bi mais yéen yow kese léegi xaaral xaaral <laughs> xaaral da ngeen di fulal askan bi ba pare dañuy jëlaat maanaam sunu valeur yi nga xam ni moom lañ euh, moom lañ xamee sunu maam yeeg sunu maamaati maam yi moom la ñu xamee muy sunu aada sunu cosaan muy gor ca wax ja mais yow li nga wax léegi muy la parole donnée amul ay maa waxoon waxeet ay non non attends attends justement hmm. justement pour vous dire que ne tey jii ni ñun loolu lañu bëgg a ñëw exiger au Sénégal maintenant c'est une opposition boo xam ne c'est une opposition radicale négocier ñu pour ànd ak Macky Sall d'accord bu def loo xam ne tamit ànduñu ci dañ koy da daam ñu négocier ak non gëm sa bopp nga bokk mais da ngay mayel kii mu poursuivre question loolu ba xam maître eh, eh, maître eh, eggali mayel maître mu eggali comme euh, moom aussi ba tey ça euh, damay gis moom ñuy wax boo ba tey li tax ñu réccu li tax ñu ñëwaat yooyu te damay gis ne euh, est-ce que parce que depuis Abdou Diouf wala Senghor sax laay wax mhm. ba heure bii dañuy gis ne président bu ñëw ak idée ngay indi li ngay mën a changer du bari uh-huh. peut-être Laay Wade ak Macky sax am na lu mu changé ci côté euh, infrastructure ak yooyu. Mhm. mais est du gisoo ne système yi tubaab yi ñoo ñu téye ba mënuñoo dem. Mhm. wala lan moo tax mënuñoo dem parce que yéen chaque fois li ngeen doon wax. ci biir naan pour am xel ci yoon chaque fois da di dem ba renier loolu après. xam ah, man gëm ay waxu système affaire bi volonté la parce que tey jii nii mënoo ñëw. sa kër yow sa kër. Mhm. yaa joxe dépense. yaa xam yaa yor sa budget. loolu nga yóbbu ca kër ga. loolu xaaral rek nga def ko sa poos. soxna si est-ce que mën na la imposer leen li nga xam ne nekkul sa poos. waaw mën na la imposer greffage ne la greffage. te fekk ne kon moom. ngeen baal ma ci kàddu bi kon mu ñàkk ah, non mais absolument c'est-à-dire que tey jii nii noonu rek laa la bëgg a maanaam dirigeant wu. Euh, eh, africain yi yow soxna si am na nu muy takkee ay fer romb la ne la greffage. <laughs> <laughs> <laughs> abu loo may xoolee xoolal kii di la walaaj bàyyi ma waaye abu wax na ba tourné ci mètre abu tourné tuuti incliné sa caméra ngi ne li <laughs> ah, bi da koy xoolaat de barke yàlla da koy xoolaat wala rek Sadio bàyyi ki ngay distraire waaye moo non non non moom xamante na <laughs> kii moom dooy distraire est-ce que yaa ngi comprendre c'est-à-dire que ñun tey jii nii loolu la bëgg a exiger je le dis hmm. d'une manière sérieuse c'est-à-dire hmm. que problème Euh, de classe politique. depuis 1960 jusqu'à présent tu as bien raison wa li nga wax dëgg bu wér la mais tey jii nii xoolal Sénégal ay problème yu ñàkk fayda mooy fi am ngay toog ba si yàgg courant coupé ay sukkar bi ro yomb yokk nañ ko ah location xoolal location mu créé benn injustice sociale bi nga xam ne ni tey jii nii jeune bi nga xam ne sax yor na salaire cent cinquante mille mm-hmm. am na dafa am ay problème stress ngi ah. stressé wu mm-hmm. demal yi dans les dans les autres pays Sénégal am ay problème mu ay mburu loo xam ne ndekki problème mu ndekki ba léegi Sénégal am ko depuis combien d'années mais problème fépp la am léegi tey pays yëpp la am mais naa la waxal loo xamante ni kañ mënul ñàkk dafa problème yi problème yi dañ koy régler ndànk ndànk di dem mais mënuñu nga dem ba nekk mag di am problème mu ndekki boo góorgóorluwul nag boo góorgóorluwul nag mais yow problème ndekki je peux comprendre un un, ah. un jeune adolescent wala je sais pas xale bu ndaw am problème mu ndekki mais bu demee ba nekk mag. waaw waaw problème ndekki ne la non suñu réew parce que am na ci sénégalais yoo xam ne métier yenn yi duñ ko nangu def fii te bu ñu tukkee def ko nañ leen waxante li fi ne nag non dama ah. bëgg a mëngale kii am problème ndekki kooku muy Sénégal muy muy muy muy bu toll na régime mu Sénégal di am ay problème yenn problème yi moom laa mais mais abu abu man abu man yu terre à terre yi nga koy teg nguur aussi man loolu ma ko d'accord je te rejoins ah, quand même ah parce que xoola parce que bu ma jàngatee sa wax bu ma jàng bu ma jàngatee arrêté mhm. sa wax. waaw mooy président ab Abdoulaye Wade. Mhm. def na ay infrastructure def na lu bari mais malgré tout. bi muy daanu. Mhm. Sénégalais yu bari gisuñu loolu. parce que da ko doon xaar ci demande sociale. mooy ci location ci lekk ak naan mais ci xëyum ndañu même dem na moom ba bi muy génn nguur gi mu ne xam na ni dafa échoué foofu moom mu nangu ko. kon Macky bi mu ñëwee dafa war a nekk sur la continuité taxawuñu ci côté boobu maanaam. li mat ba noppi kenn du ko mottali. mais li matul ngay mottali. peut-être moom fi ñu Ablaye Wade bàyyi woon. Mhm. ba tey ji fa la ñu téye. mooy ci ñàkk ndox ñàkk courant di xiif di mar mais aussi di ñàkkum xëy. Mhm. te côté yooyu da ci war a góorgóorlu. Mhm. parce que aussi tamit loolu tamit euh, euh, biir bu deful maanaam saako bu deful du taxaw. on a beau avoir des infrastructures mais bu nu amul biir bu fees. non du nu am kàttanu ndaw tu n'es pas même pas productif. bien sûr nan ngay mën a sax amee xam euh, am nan la sa xel di ba ngay mën a réfléchir pour liggéey. bay fay impôt. waaw moo tax état bi dañoo yor ay état yu cuune yoo xam ne ñun ñun ñii gis ñun boo ñu boo ñu encadré woon waaw hmm. xaaral may ma ça euh, gis nga boo ñu en boo en euh, le président de la République Macky Sall bu joxoon euh, jeunes yi ndaw ndaw ñuy liggéey bu joxoon ndaw ñuy liggéey encore une fois sécuriser ni koy waxatee dëkk bi hmm. ndax in insécurité bi bëri na ci dëkk bi hmm. sécuriser dëkk bi sénégalais amul problème Sénégal ndax am fu mu jàpp. di añ Sénégal amul problème. waaw mbay mi ban dëkk la nekk Sénégal amul problème mooy lan. déglu ko Sénégal bu meree bu meree yàq li ñu ko defaral nga ne Sénégal amul problème. ngeen waxante dëgg nag à gérer. non non non non nañ leen nañ leen waxante dëgg nag. Sénégal bu meree yàq lañ ko defal nga ne Sénégal amul problème. nañ ko attaque. moom une heure yow la pour yow la pour une heure problème yi nekk gis nga tey gis nga ces dernières années la gis nga ces dernières années la moytul vocal yi. problème problème yi ngay dégg yëpp xam nga lan la. billaay dinañ ko partage gis nga jàmbaar <laughs> gis nga jàmbaar euh, ni ñu ko waxtee gis nga xiif. c'est un besoin naturel mooy ni ngay safee saw. dem dem dem toilette. bàyyi d'accord loolu xam nañ loolu. est-ce que loolu nag ñaata nit doyut. ñaata jeune ñoo nekk ci mbedd bi ak ñaata mère de famille ñoo nekk ci mbedd bi nga xam ne bu ñu tàllul loxo du ñu mën a lekk. nga foog ne ñooñu loolu neex na leen. dëkk yëpp la am dëkk yëpp la am. waaye nga dëkk yëpp la am. dëkk amul fooy dem ci monde bi te doo fa gis. yalwaan amul amul waay amul amul waay ci bitéeg pays yi gën a développé ñoo gën a sonn. waay yow man man it li ma wax xam naa ci dara parce que gis naa ko. yow may ñëw jàmm ak ndékki. non la jox exemple. am na problème mu ndékki am na mais dama ni. du Sénégal kese dëkk yëpp la. foo dem am na ñu tële. yàlla bindee noonu. ndekki. yow waaw mais mais président yi dañu ko war a faj dañu ko war a faj bañu ma loolu. bañu ma loolu. bañu ma loolu. c'est que man fi ma ànd ak moom. mais 100 pour cent amul kenn war a wut liggéey non non dañu war a jox il faut pas que yenn affaire yu yoo xamante ni nit ki war na ci mën a góorgóorlu aussi. ah yow jàmbaar wala moom mii sax moom laa koy wax. wax ma ko boo xëyoon. Hmm. di jënd ndekki. waaw <laughs> li ngay jënd yëpp li ngay jënd yëpp. waaw Sénégal defuru ko waaw waaw mburu c'est da ngeen koy lakk waaye defu leen ko benn mais ñoo koy lakk bele ah, ba defaru leen saa may ñu jàmm defaru leen mburu mais abu mais abu ba pare ñu am problème yooyu mu ceeb ñu am problème mu ceeb insuffisance ceeb ah, en riz yëpp nga xam ni le régime waaw xoolal saa njóog le régime vraiment régime moom moo ko digoon askanu Sénégal ne dinañ am autosuffisance en riz. depuis 2018 taamul ñu ngi déglu. Mm-hmm. depuis c'est combien mais mais mais mais mais mais c'est moom ah baax nan wax ci ceeb bu sew bi li nga wax ni dëgg la. mais mais mais mais mais non non non. moo tax croissance ruusitu mburu rek mooy lan. mburu bi day dem ruusit bee fii des. croissance bi mooy mburu bi. waaw waaw mais ruusi bi mooy des Sénégal. mais mais mais mburu bi étranger la jëm. France lay dem mais mais mais mais mi ngi wax li la arrangé. mais abu abu mbay abu abu. abu yow ah. abu ko xam mburu peut-être tu as des idées. Mhm. mais euh, comme li Pape ji bi wax. mais mhm. Pape yow da nga bëri histoire. donc ah. yow ànd ak kenn. ba àndoog Macky mais opposition bi te àndoog ñoom. gëm sa bopp mais sànq gëm bopp. du ci toog fa la nekkoon. du ci toog da ngaa jëlee seen activité daaw ci heure bi dalal naa la fii ngay dal waa MDD ak TMDD moo yeewi askan wi. Mhm. yow jubóo ak ak nguur gi jubóo opposition bi lu xew pas de problème cest waral nga jëlee ci activité waxoon ma déedéet. di nga wax lu ah. waral nga jëlee ak ci activité ak Bougane lan la. wax nga da ngaa xuloo ak moom. non non non non xuloo non xuloo ma ak Bougane mais yenn chose xam nga bétti. wala da nga ko wax mu jënd mburu mu man hmm. man maag yow li ñuy waxtaanee. maag yow li ñuy waxtaanee. ci loolu lay tënku boo ko def su ma neexee retiré wu mais nga maslaa. non non non no xam nga ay maslaa. xam nga lan ngeen waxtaanee waaye mag ñu baax ñi. parfois xam nga maslaa parfois ñu baal ma. ñu ci kàddu gi kat la de gay geddi. parfois ñu baal ma ci kàddu gi. Hmm. parfois maslaa kàcc la. ñu baal ma ci kàddu gi waaw dëgg la bu baree de yëfu naa fekk. parfois kàcc la. Hmm. Hmm. te surtout loo xam ne réew man ku ma xam dans la vie sociale amoo problème mais lu toll dëkk. wala des intérêts yoo xam ni intérêt général la nit ñi def nit ki daf ci war a exigeant daf ci war a am fulaak fayda. <laughs> c'est vrai oui hmm. mais bu doon maag suñu relation maag yow nga yoreel ma xaalis ak nga gàjji maag nga kii maag du ma la faale. Hmm. je n'ai pas ce problème là mais tey jii nii dafa am ñoo xam ni tey jii yàlla dafa def ñu ñu juddoo ci banlieue. Hmm. xam li fa nekk. waaw am na ñoo xam ni maanaam tey jii nii bu ñu añee lu ñu reer. am na ñoo xam ne am nañ problème location. bu la 25 jotee. ah bu ñuy bu ñuy dox mën nañ dox sax ba mbëkk la. billaay waaw mais ñooñu boo toogee di leen défendre toi aussi. waroo mën a nekk benn xaru yar toog. te foo dugg aussi waroo nekk benn xaru yar parce que y a des gens derrière toi. Mm. ñooñu laay défendre mais ku ma xam xam ne du ma sigi sax xool nit. Mm. donc loolu dañu ko jox étiquette boobu dañu ma koy jox ñun de di nga ñu xool ba joxer bi étiquette boobu dañu ma koy jox dans les coalitions yooyu yow kii na na classe politique la xam benn affaire que ne alalu Sénégal alalu askanu euh, Sénégal ñoo ko moom mm-hmm. nekkatul affaire boo xam ne ay affaire u paacoo la ah ah benn benn group rek di di lekk maanaam alalu askan bi yëpp loolu moo jeex Sénégal loolu nag suñu bakkan lañ ci teg ah nañ ne dafa réew dafa arrogant dafa def je m'en fous ah li ci gën a am solo mooy askan bi may défendre la ñooñu askan bi may défendre. man loolu laa xool. Mhm. révolutionnaire man ak yàlla nag. mi ngi may fàttali xam nañ nan laa mel. yàlla moom laay rendre compte. Thomas Sànq yàlla moom laay rendre compte rendre ma compte askan bi askan bi nag. tant que maa ngi leen di xeexal am na leen li nga xam ne. moom ma ci sëgg sama bët. jërëjëf looy tàggoo dem na waaye demul. looy tàggoo ah, looy tàggoo. waaw bon li may li may tàggoo mooy bon li nga boo demee Burkina le Thomas Sankara sénégalais lañ may wax. donc loolu loolu. mais yan li may tàggoo mooy juste que ne temps bi ndaw na trop. ndax ndawul 30 minutes lañ la jox. abu xoolal abu abu 30 minutes lañ la jox. yow d'habitude 25 minutes laay joxe mais yow 30 lañ la jox. abu abu tàggoo ci dem bon. li may bon di leen féliciter sérieusement bi dañ koy seetaan. Euh, c'est tellement suivi. ci ci ci ci ci Sénégal. te surtout heure bi muy am. Mhm. macha mooy tax man heure bu fekk maa ngi añ naan teg sama ataay jàkkaarloog moom. jërëjëf d'accord di reetaan di. merci jërëjëf ok merci. jërëjëf Abou Mbaye mouvement Réthiou fal fal Macky ah <laughs> mi ngi noonu ajaratu kàddu gaangu jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal Abou mbay naka noonu ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité bi jaajëfal nañ ko bu baax ñu dem régi bu nu noppee dalal euh, la directrice technique nationale de Viet Vo Dao ah j'ai bien prononcé maître Aïcha muy maître Sadio régie